xanaa mbégte ndax euh, dañuy féliciter d'abord Malal Diallo ci li mu réussir tey plus cent quatre-vingts ñëw nañ tey compétir fii ci Mbacké te loolu gëñ na fi li may fàttali rek mooy quatre-vingt-neuf ba quatre-vingt-onze terrain bi daf may fàttali en quatre-vingt-neuf finaliste naa fi Coupe du Sénégal donc euh, bu ma gisee ñi fa dajawaat sama xel dafa dellu ci démb li ma leen réussir nag gis ngeen invité yi li ñu wax bariwul dëkk bu koy réussir li ko waral ci moom lan parce que ku xewle da lay fekki kon ñi ngi félicité mboolem participants yi di leen ñaanal yàlla ñu dellu ci jàmm wante di wax monsieur président Malal que boule amicale de Mbacké incha allah avec l'inspecteur du sport danañu xool benn bërëb bu baax ñu aménagé ko ba mën a nekk un très bon terrain de compétition ndax sport boule dafa am solo ndax day sport boo xam ne dafay fédérer ay décideurs ay boromi xam-xam ay njiit ay nit ñu am solo ci réew mi ñoo xamante ni néew na fu leen administration mën a dajale mais ñu daje fi waxtaan jóge ci 14 régions yi ci jàmm ak salaam donc loolu lu am solo la kon nag ñi prépare préparé allah la ne prochaine pour que mu mën a nekk une compétition boo xamante ni dañ ko mën a woo non seulement les sénégalais mais aussi si ñeneen naatangoo yi nga xamante ni ci sous région bi di compétir si Sénégal. infrastructure sportive yi xam nga ne stade bi daanaka pare na. ndax stade bu fekkee ni tribune bi di des un cinquième tribune bi moo ci des dañuy toog gazon synthétique bi ñëw na depuis quatre mois il y de vingt jours dem na assister ñuy wàcc projecteur te travaux yi taxawut ñu ngi def lu ñu man pour mu avancer d'ici un mois da nga gis terrain basket bi ñu réhabilité ko ak benn place publique bi muy dendal ci dans le même sillage la bëgg incha allah rabbi mën a jël bërëb bu baax bu accueillant boo xam dañ fi mën a implanter li nga xamante ni mooy terrain pétanque bi nga xamante ni dafay nekk un terrain communal la pétanque parce que boule amicale propriété Mbàkke gi yëpp la kon ñëpp ci war a jàpp pour que vraiment mu mën a gën a am succès parce que ay compétiteurs lañ yor ay champion lañ yor fi ci Mbàkke infrastructure yi ñun suñu yéenee mooy dafa dëppoo ak tamit li ministre bi wax mooy suñu yéene mooy ñu fexe ba ci décembre bi ñu mën a inauguré stade bi parce que mooy suñu souhait liñ ci daj lépp it incha allah rabi bu ñu sañoon avant les élections ñu mën ko inauguré jeunesse bi population yi parce que attention stade 2000 places la d'un stade de 2000 places dafay participer d'une manière significative sur l'attractivité de la commune dana buste aussi les recettes dana créer tamit beneen engouement boo xam dana permettre vraiment jeunes fi nekk gën a wane seen ay talent ci sport. non mën naa wax ni yomb na yomb yomb na parce que vraiment luñ ci kër yëpp koy naan ay soixante dix jours soixante dix équipe boo fa nekk te ñu ne quatre trente nangam on a battu le record. donc loolu lépp bu yombee tey jii wax dëgg yàlla du ma ko sante ku mel ne monsieur le maire ak waa dëkk bi monsieur le maire moom rafet na lool lool ci kotom vraiment teeloon na bu ci ci booy booy ba lii nag yàgg na ko defan ah, ci sportif yëpp c'est pas la première fois man politique ma li may wax li suma àq lay taalaa lay waxee moo ko def ma wax ko def naa c'est la première fois sax autorité ñëw fi moom moo ko fi njëkkoon dem defaat ko moo ñëw dig ñu ko carrément dafa ñëw waxal boppam du loo xam ne dañ koo ñaan nekk li bëgg nañ ko wala nangam ak nangam dafa ko wax moo répété waat ko tey ji ci kanam public bépp kon ñoo mën a gëm ni li mu wax ne dëgg la bon bi xëy na bon mag laa ay gone laa doon dajal waa Renaissance ku leen xam ku ne ñoom bu la moo dee seen xol Renaissance pratiquement seen jour yëpp a ngi extérieur ñoom it vraiment am nañu moyen lii def naa bu ñu ko am tamit ëllëg man samay xale war na war nañoo am la pli wala ñu romb ko waaw parce que yàgg nañoo gagné coupe nag waaw Mbàkke moom yàgg nañoo gagné coupe mais tey moom sa xëy na mais si quatre nangam kii nga dem final nag vraiment yaakaar démérité wuñ daal vraiment. waaw daanaka gagné nañ gagné nañ parce que yàlla a la participation de tous les clubs du Sénégal bon on attendait les Mauritaniens mais malheureusement ak Covid bi frontière yi tijjiwut donc mun nañu wax ne gagné nañ ku am lii ci ci ay joueurs ak li nga mét ak lu mu ci def lépp man de vraiment gis naa ne gagné nañ quoi.